daayiratul fadli buñ fornome war ngay sant yàlla ñun la jigil kësalaadam sidi baram auzu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin rahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in salli allahumma ala sayyidina muhammadin al-fatih al-khatim nasil hadi wa ala alihi haqqa qadri miqdar azim radiyallahu ta'ala an ashabi rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah yaa يا أئمة الشيخ واحضري لنا بهذا المحضر ولتعط في بنظرة تأتي لنا بظفر ñëw léegi suñu darsu nasiha démb ñu ngi ci Seydi Mouhamad bun Abdourahman al Azhari ci moom la Cheikh Tidiane radiallahu anhu daje woon mu jox ko tariqa xalutiya ginnaaw kooku Seydi Abdourahman moom itam mu ngi jëloon tariqa bi dégg ci si kii ci cheikh xifnaa bi radiallahu anhu eh, cheikh xifnaa nag eh, moom ku yàlla mayoon la moom itam wali la woon dégg nga boo xamante ne yàlla def koo mayoon ñu ngi ko tuddee Shamsuddin Muhammad bun Salim bun Ahmad al Xifnawi al Xifani Eh, wala xifnaaw yi boo ci wax ci ñaar yooyu baax na xifan yi wala xifnaaw yi boo ci wax rek baax na shafiil azhari maanaam mu ngi tënku woon ci mazhabu imam shafii moom xifnaaw yi ba noppi waaye universitaire la woon ci al azhar cheikhul islam bi diyaaril misra sëriñu islam la woon ci waa misra bindi na ay muallafaat yu bare bare bare radiallahu anhu eh, kooku nag eh, moom moo jox Seydi Mouhamad bun Abdourahman mi Cheikh Tidiane daje woon Cheikh Tidiane dajewaat na itam beneen wëli yàlla ca Tunis moo xam ne mu ngi tudd Seydi Abdou Samad Rahawi Seydi Abdou Samad Rahawi mu ne wa kaana taxta wilaayati xayrihi wa huwa qutbu tilkal balda mu ngi nekkoon ci wilaayaay ci wilaayaam moom Seydi Abdou Samad Raxawi mu ne moo nekkoon xutbu ci boobu la réew maanaam réew ba mu nekkoon ci Tunis moo nekkoon xutbu réew ma kon nga jàng ci ne xutbu yi dafa am place yu ñu war a yem xutbu bii mooy xutbu lépp luy région Thiès xutbu bii moo xutbu lépp luy région Kaolack xutbu bii moo xutbu lépp luy région dakaar ak xutbu bi nga xam ne moo yëlif mboolem Sénégal comme ni ki nga xamee ne noonu la gouverneur yi nekkee ci biir région yi député yi nekk ci xawma euh, euh, waaw député yi ñu nekk ci département yi ak préfet yi préfet yi nekk ci département yi parce que administration la bëgg a wax ba noppi ministre de l' intérieur yëlif leen ñoom ñëpp waaye ministre de l' intérieur président yëlif ko noonu itam nga gisee xutbu yi lañ leen di partagé kenn ku nekk ak gox bi ngay nekk ci maqaama ci xutbaaniyatu moom nag xutbu la woon ci boobu la réew àndoom ak yonent bi wala maqaamam ci yonent bi salaalaahu salaam moom lañ tuddee rabi al arbaati rabi arbaati nag mooy ñeenteelu ñeent ñi ñeenteelu ñeent ñi daf lay jàngal ne bokkoon dem na ba bokk ci awtaat ñeenti ñeenti ñi mooy awtaat yi nga xamante ne ñoom ñoo war fardul jaamee dégg nga nga doon benn maqaama ci ñooñu noonu yow yaay ñeenteelu ñeenti ñi waaw radiyallahu Seydi Abdou Samad Raxawi bokkoon na ci <coughs> mu ne walam yatalaqaw maahu nahaaran Seydi Abdou Samad Raxawi daawun jeg moom bëccëg <coughs> moom daawul génn bëccëg <coughs> waaw li sitrihi ala nafsihi ngir suturaal bu mu suturaal boppam illa fii laylatin wax nañ ne yonantu mos na ko feeñu alayhi salaam radiyallahu anhu mu ne ko génnal nit ñi barkeelu ci yow génnal nit ñi barkeelu ci yow waaye mu gàntal lekk mu ne waaye ñaareelu yoon bi ko yonent bi feeñu wala ñetteelu yoon bi daf koo gëdd ne ko wax naa la nga génn nit ñi barkeelu ci yow mu ne noonu la jékki-jékki rek génn ci biti nit ñi ñëw di ko bar barkeelu ci moom ndax moom daawut génn dafay tëju rek di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo nekkoon dundam moom Seydi euh, Abdou Samad Raxawi altine wala aljuma ci la daan génn lu dul lool rek mu ngi doon tëju gis nga wali yàlla bi mu ngi nuroo ak beneen wali yàlla boo xam ne taalibe Baay la woon mooy Seydi Euh, euh, cheikh cheikh maahi cheikh maahi haydara bu segu moom daawut génn dundam bi yëpp daawut génn su génnee aljumaaw lay génn wala altine wala ziyaara ji màkka wala aji màkka di moins wala ñëw ziyaara ji cheikh ibrahima radiyallahu anhu lii moo ko daan génnee benn bis la génn moom Chérif Mahi mu dem ziyaara ji benn taalibeem bi jàpp doomam rendi ko allahu akbar kon nii la wali yàlla yi mel ci seen xaal ci lañ leen di xàmmee am na ñoo xam ne nag duñ feeñal benn xaal ñoom dañuy féetewoo nëbbu loolu itam am na ci waaw moom nag li taxoon muy nëbbatu wala li taxoon waaw li taxoon muy nëbbatu parce que moom mooy rabiu rabiu euh, rabia arbaatin mooy ñeenteelu ñeent ñi li sitrihi ala nafsihi illa fi laylatil jumaa wa laylatil isnayni ngir rek suturaal boppam ba des nag bisu aljuma dégg nga ak bisu altine daan na ko génn yabituuna maahu daan nañ nekk ak moom ci néegam wala dalika qaala li cheikhu radiallahu anhu mu ne cheikh tidiane radiallahu anhu mooy nettali seydi muhammad bun mushir yi ne ko fa talabtuhu man sàkk woon naa fi mulaqaati ngir dajeeg moom man bëggoon naa dajeeg moom mu ne waaye famtanaa dafa gantal dafa wax ne déedéet <coughs> kon seydi abdu samad raxawi ndaje dajewut ak Cheikh Tidiane waaw daf ko gàntal mu ne wa baastu lahu zaata yawmin mahbuban Cheikh Tidiane mu ne benn bis nag ma daal di ko yónnee dégg nga mahbub mahbub nag buñ ko waxee euh, moy xaalis la maanaam xeetu xaalis la mu ne nawun min anwaa min anwaai dananiir maanaam xeet la ci xeetu euh, xaalisu dinaar yi moom la ko Cheikh Tidiane yónnee ba mu ko yónnee mu jox ko saaba maanaam bëkk néegam bi nag na ko jox bi ko joxee nag cheikh mu après moom mu wax moom Seydi Abdou Samad Raxawi mu ne al mahbubu baasa mahbuban mu ne ah sama soppe bi yónnee na ma danaaniir xam nga mahbub ci arab moo firi soppe ba noppi danaaniir yi eh, danaaniir yi mooy xaalis bi aussi mahbub lañ ko tuddee mooy soppe léegi nag mu ne soppe bi yónnee na soppeem soppe bi yónnee na soppe soppe bele xaalis la waaye soppe bi mooy Seydi Abdou Samad Raxawi waaw Cheikh Tidiane mu ne dafa bëggoon Cheikh Tidiane Cheikh Tidiane soppeem la falamma irtahalla min Tunis ila Misra qasidan mulaqati Cheikh Abdou eh, eh, Cheikh Mahmoud Kurdi mu ne ginnaaw ba mu jóge ko nag ca Tunis moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu mu jëm Égypte booba lim ci jublu mooy dajeek wali yàlla boobu noonu ñu tuddee Seydi Mahmoud Kurdi radiyallahu anhu nga xam ne Cheikh Tidiane kon dundam bi yëpp mooy wali yàlla bu mu dégg borom may la borom cër la ci yàlla mu ne dafay dem dajeek moom loolu moo tax bàyyi mu ne lu ngeen xam ci sëriñ boo xam ne fu mu dem mu nekk fa taalibe mu am taalibe boo xamante ne fu mu dem nekk fa sëriñ radiyallahu anhuma waaw moo tax mu jóge ko Tunis di dem Égypte ngir dajeek Seydi Mahmoud Kourdi radiyallahu anhu mu ne qaala lii warattu alayhi rahimahullahu taala qaala lii anta mahbubun inda allahi fi dunia wal axira waaw radiallahu anhu ah, léegi nag ci la waxee ne bi mu dajee ak ak ak Seydi Seydi eh, eh, kii Seydi Mahmoud Kurdi moom Cheikh Tidiane dégg nga mu ne lu mel ni ki waarit ñëw ci moom rahimahullah mu wax Cheikh Tidiane ne ko anta mahbubun indallah fi dunia wal axira yow ku yàlla bëgg nga ci àdduna ak alaxira yow Cheikh Ah, gis nga kon Seydi kuur di mu ngi dëggal la Seydi Abdou Samad Rahawi waxoon xutbu la woon moom itam wax naa la bi ko Cheikh Tidiane yónnee xaalis mu ne soppe bi yónnee na soppeem léegi nag bi ko Seydi Mahmoud di gisee ci la ko waxee ne ko yow kuñ bëgg nga àddina ak alaaxira waaw ah, yow ku yàlla bëgg nga àddina ak alaaxira allahu akbar yan yàlla defal ñu loolu xultu lahu Cheikh Tidiane ne ko Ah, miin ay na lakk haada lii nga ma wax foo ko jëlee foo ko déggee gis nga Cheikh Tidiane nekkul woon wali boo xam ne loo ko wax rek da ciy kontaan déedéet di xoggaliku loolu ko ne na ci bàyyi xel am na ñoo xamante ne boo leen di tagg ci maqaama day gis dañuy funki mel ni chambraire dégg nga waaye Cheikh Tidiane boo ko daan tagg ci maqaama itam dafay dafay kii du du du tëb rek nangul la ko de waaw ah, dafay dafay dafay taxaw d'abord seetlu yow li nga koy wax nii lan la ak foo ko jëlee waaw radiyallahu anhu dégg nga moo tax mu ne ko Cheikh Tidiane Seydi Mahmoud Kurdi ay na la hada <coughs> yow fan nga jëlee loolu nga may wax qaala li min allah mu ne ko maa ngi ko jëlee ci yàlla baada an qultu lahu mu ne ginnaaw ba mu ko waxee moom Cheikh ay ra'aytuka wa ana fi Tunis Seydi Cheikh Tidiane wax Seydi Mahmoud Kurdi ne ko man de gisoon naa la boobu maa ngi Tunisie boobu laa la gis. qultu laka inni nuxaasun après ci laa la wax ne man daal përëm laa kullu zaati dégg nga mboolem sama jëmm ji mu ne qultu lii Seydi Mahmoud Kurdi ne ko wa kadalik wax nga dëgg noonu la demee tibi mu ne ko wa ana aruddu nuxaasaka dahaban mu ne ko waaye sa përëm boobu nga nekk man dinaa la ko dellool mu nekk wurus ndeysaan dégg rek wal yàlla yi fa lama xasastu alayhi xiina waratu alayhi mu ne ba mu ko nettalee yooyu noonu ak waarit boobu ni mu ñëwee ci moom xaala lii mu ne ko huwa kadalik noonu la demee kama raayta comme ni nga ko gisee rek la su ma xaala lii a ayaamin dégg nga mu ne ko ginnaaw loolu nag quelque jour Cheikh Tidiane Seydi Mahmoud Kurdi ne ko maa mat lu bëgg waaye lan nga ma sa càkkuteef yow Cheikh Tidiane lan nga bëgg qultu Cheikh Tidiane ne ko matlubi al qutbaniya man daal sama càkkute mooy xutbaane Cheikh Tidiane fu mu mës a dem rek mooy xutbaane lay sàkko moom loolu la bëgg gis nga ku amoon yitte la ku xamoon lim bëgg la te ku ko toppoon la suivre ko tam xoolal ñoom daje ñëpp ba muy gis Seydi Abou na ba Seydi Abou Madiana di ko garanti ci nelaw dégg nga ba mu gisee ak Seydi ba mu bëggee gis ak Seydi eh, eh, Abdou Abdou Samad Rahabi dégg nga ba hadiya bi mu ko jox te loolu yëpp li mu ci jubloon mooy bëgg maqaama xutbaaniya ba nim ñëwee ci Seydi Mahmoud Kurdi mu naan ko lan nga soxla mu naan ko maqaama xutbaaniya yaa ngi dégg ak ko garanti woon itam ba mu naan ko loo soxla mu ne ko maqaama xutbaane ko mu ne ko lakk fawqa zalik yow am nga sax lu raw loolu dégg nga nga gis ne waxtu nekk fu mu dem rek maqaama xutbaane laa soxla maqaama xutbaane laa soxla xaala lii mu ne ko lakk aksaru minha Seydi Mahamad Kurdi ne ko yow am nga lu ëpp loolu sax fa qultu lahu mu ne ko alayka qaala naam mu ne ko ci yow mu ne ko waaw dégg nga suma baada an rajaa ilayhi min hajjatihi al mabruur ginnaaw nag ba mu tukki ba mu jóge ko ci tukkeem bu barkeel boobu noonu moom Cheikh Tidiane dégg nga azina lahu fi tarbiyati bi tariqa xalutiya ci la ko Seydi Mahmoud Kurdi dégg digal maanaam ci tarbiya yaa ngi dégg eh, eh, tarbiya ci tariqa xalutiya maanaam ne ko na ci na ci na ci tarbiya waat radiyallahu mu digal ko na ci tarbiya waate mu ne wa amarahu bi itaayiha mu ne ko itam nay joxe wird wird wird xalutee bi ci képp koo xamante ne laaj na ko ko ala kurhin waaw fa qaala lahu mu ne ko laqini naasa wa damaanu alayya mu ne ko joxal nit ñi garanti bi man la man maa ko garanti yow doo ci dara yow Cheikh Tidiane joxeel rek man maa garanti moo tax ay jamono nga gis koo xam ne dañ koo garanti muy liggéey te fekk xamu ne dañ koo garanti loolu jar na xàmme bu baax a baax a baax ay jamono tam nga gis koo xamante ne yàlla def koo may mëdët te dëgg-dëgg kuy liggéey madadam la dégg nga waaye Seydi Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ba mu joxe tariqa xalutiya boobu du garanteem la doon demee du madadam waaye madadu Seydi Mahmoud Kurdi la doon demee radiyallahu anhu moo la wax nañ ne njëkk naa jox ci tariqa boobu noonu dégg nga xalutiya boobu noonu mooy Seydi Mouhamad Mishri ak Seydi Ali Harazim Barada radiyallahu anhuma fa qaala ko naam ne ko waaw wa qaala lahu ana daaminun Seydi Mahamoud Kurdi ne ko man maa la garanti waaw man maa garanti loolu fa qaala fa aan mu ne ko léegi nag naam mu ne ko waaw baax na dinaa ko def wa axbarahu bi baadi umuurihi mu wax ko lenn ci ay mbiram ma waqaa lahu fi siyaahati ak lépp loo xamante ne ñëw na ci voyage am bi nga xamante ne defoon na ko ca Makka diggante Makka ak a war li ko ci arrivé yëpp yaa ngi dégg mu wax ko wa sababi mulaqaati ma cheikh al xifnaawi ak sabab bi nga xamante ne moo sabab ba mu dajeeg eh, cheikh xifnaawi ak cheikh Moustapha al Bikri yaa ngi dégg radiallahu an jamiihim wa nafaana bi barakatihim eh, eh, radiallahu anhum dégg nga ci la waxee ci la tuddee lenn ci taalibe Seydi Cheikh Seydi Mahmoud Kurdi mu ne wala ma saara umruhu ba mujjee dundam moom seydi mahmoud kurdi samaana asharata sanatan dégg nga maanaa juróom eh, fukki fan ak fukki at ak juróom ñett raa fi manaamihi ci la gisee ci géntam dégg nga cheikh mouhamad xifnaawi ci la gise cheikh mouhamad xifnaawi fa qiila lahu mu ne ko hada cheikhuka fa taallaq qalbahu bihi dégg nga mu ne ko kii sa la jëlal sa xol bi nga aj ko ci moom wa qasdahu bi rihlati hatta qadima misra mu ne jubluwaayam mooy dafay voyage mu ne ba ni mu agsee yaa ngi dégg ci misra wa bi bihi mu dajeeg moom foofu wa axaza anhu yaa ngi dégg mu jël ci moom tariqa xaluutiya kon cheikh xifnaawi moo géntulu woon cheikh Tidiane ne ko demal ci kii jëlal sa xol bi nga aj ci moom parce que sa sëriñ la dégg nga mu ne ba ni nim nim armaale nag dem Égypte yaa ngi dégg daje fa ak Seydi Mahmoud Kurdi mu dajeeg moom mu jël ci moom tariqa xalutiya wa salaka ala yaddayhi mu sóobu ci loxom baada an kaana ala tariqati cheikhihi al awwal ginnaaw ba nga xamee ne mu ngi nekkoon ci tariqa sëriñam bu njëkk bi mooy Seydi Ali al Qusayri da nga radiallahu anhu walam yushaddat alayhi cheikhu al hifnaawi mu ne waaye cheikh hifnaawi tëjalul ko buntu boobu noonu radiallahu anhu fi darur ci tarki awraadi cheikhihi ngir mu bañ a loru ci bàyyi ga muy bàyyi wirdu sëriñam boobu noonu al awal bu njëkk bi wa zalika limma alimahu min sidqihi wa mahabbati mu ne loolu bokk na ci liñ xam ci dëggoom ak mbëggeelam dégg nga radiyallahu anhu su ko defee ñu ngi tënk fii ni ba suba ñu continué waat incha allah ci Cheikh Tidiane ak sëriñam yi nga xam ne daje woon na ak ñoom allahumma salli ala sayyidina muhammadin haqq qadri miqdaril azim أبدا في زماني جامعا للأحوال مني صلاة أدخل الخلق حضرة الكرسي أجلي منظر المصطفى ومني صباح وقصيد التجارية هذا قلبي فيه من أوم اللزام فيما أسمع أيضا مآرب أنت أدرى حققا كل ساك أنت رجاء وقضيت تجانها حققا به في أمر أو منزل dayratul fadli kuñ fornome war ngay sant yàlla ñun lay sigil gëstaloodam si di baram